beneen dimension bu am solo aussi bu ñu indi mooy le financement de la l'agriculture parce que euh, Moussa pour euh, vraiment aller vite da nga wax benn euh, matrice bu am solo boo xamante ne dama ko retrouver tam ci plan Sénégal émergent mais retrouver ko sur les instructions yu ñu chef de l'État di jox chaque mercredi par rapport à sa politique de développement organisation wax nga ko financement wax nga ko coaching en terme de leadership par rapport au différents programmes wax nga ko mais bi ëpp solo nga wax ko te président def si ay jéego am solo mooy le marketing versus le marché en réalité aujourd'hui le Sénégal dafa génn effectivement son économie introvertie là pour dugg si marché yi ba fu nekk la nit di jóge léegi di ñëw jënd si fii si Sénégal li Sénégalais di produire loolu donc mu nekk lu lu am solo bon donc sëñ bi maa ngi lay euh, wax ne kii ñaax loolu ci Sénégal tàllal na la loxo tàllal na la loxo moo tax mu indi fi délégation bu am solo ñu toog si sa bor euh, tàllal na la loxo parce que ñëwuloo rek ci ay wax danga ñëw si une proposition très concrète bu doon na sax da nga koy door ñu wax mais danga ko commencé si diwaan si Bamba fépp ba si tey bon nag ñu ngi lay euh, encouragé bu baax a baax a baax di wax ne lenn rek moo soxal euh, le chef de l'État son excellence le président Macky Sall mu nekk au centre du plan Sénégal émergent mooy jigéen ñi surtout ak ndaw yi parce que bu doon ne si PSE rek la nekk comme cible sax ñu ne dafa ñëw pouvoir door ko préoccuper mais déjà dans le yoonu yokkute daf ne woon ma cible ce sont les femmes et les jeunes donc maa ngi leen di remercier bu baax